dóor duñ la final waaye dañ feexe ba yor la ci éducation boo xam ne mooy lii ma la wan. lu bon li nga doon def lépp di nga ko bàyyi. lu bon li nga doon def yi boo fi amee ñaari at moom ñaari weer rek da ngay commencé ko bàyyi. premier étage ci immeuble bi mooy la mooy ban. premier étage bi xam nga nit ki fi muy jàngee wur faa fanaan premier étage bi dañuy def buñ xëyee suba teel dañ leen di wàccee suñ leen wàccee mooy mbaaru mag mi fi la ñuy jàngee suñ fa nee di jàng dana am koo xam ne moom ñoo xam dañuy yéeg fobere étage bi ba mu set wecc ñu jàngee fii ba di jot nu génn fii añ suñ añee trois heures ñu duggaat jàng su cinq heures ñu génnaat fii su guddi jotee ñu dem tëri premier étage bi xale ya ndaw yi fi nekk deuxième bi ñaam fukki at ak juróom trois premier bi ñaam fukki at deuxième bi maanaam ñaam fukki at ak juróom ñaareel ñett ñetteel ba ñaam ñaar fukki at la ca topp ñaam ñaar fukki at ak juróom dañ leen lay bett duñ bokk fu ñuy fanaan. kon am na ay xale yu dem bëtt am lu ëpp ñaar fukki at ak juróom ñu indi leen fii ñu jubbanti leen ci wàllu yar. bëri na ci xale yoo xam ne dañ naan naan damal di tux di sàcc te image bii may la wax Ndakaaru googu bëri na fi ñoo xam ne commerçant yoo xam ne ñu ngi may gis seen doom yi teewoon nañ leen bañ bandoone leen génnee leen seen i kër sànni leen ci mbedd mi nga xam ne bëggatuñ leen woon loolu bëri na ñoo xam ne ñu nga Ndakaaru gee seen i baay ñoo leen jur jàng loo leen école français bañ àgg université nekk di agressé da taxaw waalu di sàcc di tuux di naan di fanaan àll suñ leen andee fii ni ñuy def mooy duñ duñ la duñ la duñ la tëj de duñ la sonnal waaye cour bii moo amoo foo génnee. doo génn cour bi moo amoo foo la ñuy def mooy dara la jàng ba siin miim nga tàmbulee jàng su su tee nga génn fii. soo sang nga sang loo bëgg def ndax lee ab baaj la gis nga baaj bee ngay gis yi dañoo dem muy baaj bu gàtt boo xam ne yow ci baaj waaye yaatu goo xam ne biir baaj mi nga gis lépp ndox la ba ci buntu ba fa nga duggee lépp baaj bi jaaw de xam nga bi jaaw mooy agune am na boo dañu ne ci Italie wala ñu ne ci Amérique juddoo foofa di naan di tuux di sàcc ba nga xam ne seen waajur moom toujours ba bésal état bi dañ leen di woon neen kii moom bu ngeen yéexi musiba am bu ñeen fi indee bu ñeen dalalee jàng toppatoo leen rek at lañ fee am dal de baax melaan nañ meloon ñu dellu yéen seen waajur bëri na Ndakaaru koo fa gis mu nekk ci magasin nekkoon na fii te waajuram bandonoo na ko ba génnee kër kër ga ba dàq nañ nañ dugg moo la xale yi sëñ bi centre bi ni mu yaatoo école yi euh, taax yi ni ñu màggee ak bi ni mu yaatoo xanaa dina lëndëm guddi gisoo lamp yi ci bâtiment bi lii lépp ay lamp bâtiment bi li ko wër lépp ay lamp la gisoo lamp bu mag bii fii bu guddi jotee boo fi taxee app sa boroonoon sax nga mën koo far lii lépp ay lamp kon xale yi kenn du mën a kenn daw ah, fooy def ay lamp la gardien yaa ngi taxaw di la xool fooy def lii lépp ay lamp sëñ kañ dugg dama bëgg dama bëgg mbokk yi ñu seetaan dama bëgg sëñ bi woon ma parce que neexutu dugal ci nopp ñu ne xale dund ñaar fukki at jàpp ñaa fukki at juróom nekk délinquant di naan sàngara di tux yàmba di def naka sulul noonu di sàcc di dugg ci ay njombe ñu jël ko éduqué waat ko orienté waat ko jubbanti waat ko ba mu nekk nit. loolu faw ñu am ci am na ñoo xam sax dañu nit ak viol. booy Dakar yi am na fi ñoo xam ne lu ne dañ dañ ko andi. maa tudd Xaadim Mbaye. Xaadim hmm? Mbaye ñu naan ma seexu naa. waaw ah, kañ ñëw. naa bi ñuy waaj a màggal màggal Tuubaa. waaj waaw. avant nga ñëw fii ci lan euh, maa woon di di kii di for ay feeraay di. di wutee taxaray wéccel yooyu. taxaray wéccel da nga doon jëlee fu jàmm. de daan ma di bëri lu may jëlee fu jàmm nag. daawoon nga tuuf ak 15 waaw waaw daan naa tuuf waaw daan naa 15 waaw. mais léegi nag. yëpp ba naa yëpp yooyu yëpp ba naa ko. daal moom ab ndimbal la quoi ñëw fi moom ak defaru la tax. du doon koo xam ne sa tëdduwaay day mitti du doon koo xam ne dañ lay teg finna da ngay nekk fu baax da tëdd fu baax da lekk lu baax di jàng da génn ci cour bi di entraînement. xam nga fii nii fii. te bi ngee ñëw fekk mënu woon a jàng. am na ñoo xam ne jàngoon nañ ba àgg université te seen bàyyi nangootu ñoo jàng xam nga li xew ci jamono bi léeg-léeg nga dégg ab yëngalkat fee rek nga dem toppi ko te sa bàyyi bu la sa bàyyi na jàngil nga lànk wala nga dégg am musicien topp ko bu la sa bàyyi na jàngil nga lànk wala yi xew nii rek commencé da fàq ko bu buñ la jëlee fii boo ñëwee bu fekkee jàngoon nga dañ lay continuer boo jàngul dañ lay dalal baasin duggal mbaar mii nga xool ko booy yi fi nekk yëpp dañuy ta kañ dugg nga wan ma duggal fii nii xool ñu mag ñi. waaw jiitu bi nga wan ma nga wan ma. lii mooy li laaj léegi xale ndaw yi nga xam ne ñoom dañoo te seeni way jur jubuñ baaxuñ ñooy xale ndaw yi gis nga ko fii xam nga lii amuñ benn fitna gis nga fenêtre yi ni mu bëri angalaw yi ni mu bëri te fii huit heures lañ fay dugal a jàng ba midi ñu génn ci kuur bi ba trois heures nu duggaat nga jàng ba 5 heures nu génnaat ci cour bi ba une ci guddi ñu dem tëri. fi nekk nii ñëpp ñu fi nekkoon yàqu ci wàllu jikkoo ñëpp la ñëpp jubaat ñu orienté leen euh, yar leen jàngal leen. a ah, fii ñu fi jubee kenn mënu koo xam at mu jot liñ fay génne ci ay xale yoo xam ne fi la jaar jub fi day ëpp juróomi téeméeri nit. dugal ci biir xoolal xoolal rek. mais am na xale yu mag am na ñu mag ñi ah. ah? am na ñoo xam ne ñoo mag ñi. waa am na ñu mag. fi ñu jógee mooy xale yi dëkk premier étage ci wàllu logement yi mooy premier daara itam ma fàttali ni mooy xale yi nga xam ne dañoo të ñu woon a jàng ñenn ñi di quinze ñii di tux ñii di sàcc donc ñu ngi ci ñi dëkk ci deuxième niveau euh, ñi ñoo dëkk deuxième niveau. ba tey barab bii ci la bokk xam nga wax naa suuf gi moom lépp ay mbaar la kaw gi la bëgg di jotee fa la ñu tëdd waaye lii itam ci barab bi la bokk gis nga ñi ñëpp waaw gisoo mag ñi nekk ci biir dañoo jël ay jàngalekat ñu nekk ci biir ñoo xam ne ñoom ñoo di jàngale li fi nekk ëpp na juróom fukki jàngalekat. wala bëggul mu leer. li fi nekk ëpp na juróom fukki jàngalekat. parce que gis naa ci benn ndongo téere bee mu tim ne du téere kuy soog a daal xam-xam. téere bee xalil la moom xalil lay jàng day jàngale. fii nii doomi ñan ñoo fi nekk ñi seen loxo ñi seen papa amul xaalis wala am na ay doomu kilifa yi fi nekk. maanaam fii am na ñoo xam ne seen baay ay xalifa général lañ ñu ngi ci biir. Ah. ay xalifa général laa wax de. Mhm. am na ñoo xam ne seen baay ay pëlëkëloor lañ am ñoo xam ne seen baay ay militaire lañ am ñoo xam ne seen baay ay gendarmerie lañ am ñoo xam ne seen baay ay douane lañ du ma tudd tudd kenn nag waaye ñi fi am ay doom xam nañ leen. ñëpp a ngi fi am na ñoo xëyee seen bàyyi ay milliards lañ lañ lañ lañ denc waaye dañ leen a të yàqu ba mënatuñ ñoom dara xam nga gone gu tuuti lu toll ni di tux xale bu tuuti di tux kon daa garaaw kooku day yàqu. mais sëñ bi euh, yëf yi du du nen de. maanaam du neen sax ñaari yëf ak ñi ndax daara ji ci ndigalal sëñ Saliou lañ ko sancee sëñ Saliou ci boppam toog na ci digg daara ji la mat ñetti waxtu yoo xam ne dafi ñaan sëñ Saliou Mbàkke ci boppam. non xale yi li leen téye fii laa du de. waaw man nag danaa def altine ci biir daar ji laay fanaan di ñaan ba fajar jot ma tëbli ko ci ndox def ko ci baaj bi ngir ñiy tux ak ñiy naan ak ñiy njaalo ak ñiy sàcc ak ñiy taxawaan lu leen tax a bàyyi loolee altine fi laa de fanaan ajjuma fi laa fanaan. sëñ sa numéro téléphone ñaata la. 77 81 06. waxaat ko. 77. 377. 81 06. li tax ma laaj ko numéro bi mooy xam naa ni bari na ay wayjur yoo xam ni jaaxle nañu tëddatuñu ba nelaw wala bu ñu nelawee itam yandoole tuñu ndax mënatuñu am accès ci seen ay doom seen doom dugg na tey ci ndëngte goo xam ni ak lu ñu mën di def mënuñu am solution dañuy dem sax ba gàkkal deru wayjur ba fekk na doom ja moo dëng dëngu boppam ndax. waman yudil la fala fala fala fala haadi lahu donc loolu mooy jafe-jafe bi nga xamante ni bii nag bu ñu amee haadi boo xam ne mun nañoo dimbali dañuy sant yàlla bu baax loolu moo tax ñu ñëw ci daara bi sang bi kon ñu dem ci ñi nga xam ñoo gën a mag xale yi. waaw baax na nañ dem. ayca. daal sant yàlla rek waaw góorgóorlu rek waaw boo ñëwee daal di nga di nga wàññi lu bëri wax dëgg yàlla te dina la yokk lu bëri tamit. waaw est ma ko yéene ma génne lu ma daan banaaw incha allah. waaw gën. waaw lu ma li dëgg yàlla waaw maa jàng alxuraan waaw. maa bàyyi woon sem 2. Ah, waaw boobu maa ngi doon franco arabe. fii nag maa jàng alxuraan moom. maa defaraat jikko bu baax a baax. waaw. Mhm. lay wax ci sëñ Cissé. sëñ Cissé waaw ah, xanaa di ko ñaanal rek moo xam lu mu bëgg si xolam yàlla na ko yàlla defal lu ko njorom. defal ni ko ñëpp ak mborom jullit. waaw sang bi nag nooy lay joxe ay xale yoo xam ne am nañu âge bi comme xaadim nii nga orienté leen. xam nga nit moom su fekkee fa nekk amul fa benn fitna amul fa benn jafe-jafe nam nekkee woon kër baayam la nekkee fi yow te muy laa gis ci jikko ju baax fekk fi ñoo xam ne jikko ñu baax daa am ay jafe-jafe maanaam koo gis ay jafe-jafe daa am rek daa fekk fa mu nekk mu am fitna waaye yow fii boo fi ñëwee dana la wër-wër yàlla na nga nekkee woon sa kër baay boo ñëwaatee nekkaatoo ko fi amoo fi benn jafe-jafe benn jafe-jafe doo am. mais dafa am yoo xam ni topp sa ba bakkan la ay habitude la bàyyi ko du yomb nooy dundee ak ñoom ba ñu bàyyi loolu. waaw loolu moom mbiri baatin la loolu moom sama <laughs> diggante ñoom ah <laughs> <laughs> dee wax. waaw ñu dem ci biir. yow maa xàmme. waaw xàmme naa la baax a baax. Gora Touré. Gora Touré Gora Touré. Sen TV. waaw mooy ñi war ci émission daara yi di xool daara yi taxawaay ak yooyu. boobu suñ kër laa nekkoon. xayra xayra xayra. fii le 22 février. waaw. Ah waaw dama doon jàng mokkal naa waaw. fasulun fi taharati waaw inna taharati naka laab la dee naa fa ñun wajab war na loolu lay jàngale pour ay laab ay yooyu waa maanaam waaw di sant yàlla bu baax daal maanaam di sant bu baax a baax a baax waaw xam nga waaw bu baax xam naa man euh, aussi man damay jàng daal maanaam waaw damay jàng. léegi euh, ñu risaal risaal la waaw risaal waaw ñu sant bu baax a baax sant bu baax. waaw daara ji moom amul benn problème dañuy ñëw jàng. seen TV wala du seen TV. Ah, micro laa gis xam ne seen TV man man laa jógee xam-xam laa sàkku si fii. da nga jóg Italie fi sàkku si fii. waaw. Hmm. Ah. <laughs> du booy disco sax. <laughs> booy disco nga woon. <laughs> non du ma booy disco sax. Hmm? du ma booy disco sax. mais ji. ah ngi nii rek ñu ngi jàngale xam-xam. Hmm. waaw. yaa ngi lekk ba suur di naan ah jugo bi waaw ça euh, day yar nit bu baax. waaw ah, ça marche. waaw. Mhm. Mhm. Mouhamed. Mouhamed waaw. Ah. Mhm. Mouhamed Gueye. ah daal ah ñu sant yàlla rek. waaw ah, ñu sant yàlla baax. fu mu jógee ñëw fii. man Touba fii laa jóge waaw. mais eh, nekk nekk fi daal rek. daal ah. yenn activités yu neex sa borom ak yu ñu neexul rek. Hmm? topp bakkan daal. Hmm. waaw mais en tout cas nekk nekk fi daal rëcc nañ ko rëccoon ko. Hmm. waaw. waaw. mais mais mais sama waa ji yow loo loo sa kii bi nii ay lan la lu yàgg na tatouage yi lan la la woon. affaire booy disco waaw bi bii ban ban kii la ban signe la. moom da ko def ne sama loxo ba rek. mais bëgg bëgg bëgg nga mu dañ moom. waaw. yéen xale yi toll ak jamono gis nga bu ngeen toppee seen ndaw def ay tatouage def lu leen di yàqal tôt ou tard bu ngeen bu seen jikko ñëwaatee jikko bu rafet dabaat leen da di rëccu lu tax ngeen def ko seen loxo donc exemple mais léegi moom ça va yaa ngi jàng bu baax. waaw maa ngi jàng. di sant yàlla bu baax. Hmm? ban téere ngay jàng tuuti maa ngi nax ju ak lax dari. ak lax dari macha allah. nax ju ak lax dari donc boobu buñ ci noppee doy na sëkk ci defar jikko ak xam-xam. waaw. Hmm. fii moom euh, dëkkuwaay la. xam nga ci suuf. Hmm. waxoon naa ne nit toujours fi muy jàngee warte bokk fi muy fanaan fii bu ngoon jotee xale yu ndaw yi ñooy nekk fii ci première bi fii la ñuy fanaan sëñ bi am naa benn question bu ma jaaxal nag parce que fii li fi nekk ci mbooloo ay junni junni nit la man dugg naa ci place yëpp bu noppee suñu caméraman dinañu wan euh, dañuy lekk dañuy naan dañuy sangu dañuy dëkk utiliser courant ak lépp te sëñ bi yow kenn nekkul sa ginnaaw sëñ bi foo jëlee comme boobu waaw xam nga toujours danaa ko wax gars yi ji ñetti anam war naa maa tax daara ji dox ci benn bi mooy kër gii nga gis ba muy doon ay bâtiment cinq kër sëñ Saaliw la woon moo ko moomoon ba muy doon bâtiment ay cinq sëñ Saaliw moomoon kër gi moo ma joxoon daar ji am nay jamono joxoon na ma juróomi téeméeri dongo moom sëñ Saaliw ci bopp mu sëñ Tuubaa mos na maa jox juróomi téeméeri dongo ma nekk ak ñoom fii barab boo xam ne sëñ Saaliwu ñëw na fa toog fa une ci guddi deux heures trois ba quatre heures da ñaan ngir barab booba jëm kaw loolu rek mën naa war naa mën tax barab bi jëm kaw mm-hmm. ba ca toppaat fii koo fi dégg ci Afrique gii ak ñi fi ëpp ñaam solo ñi ci ëpp dañu ñëw fii léegi nag ponkalam jëm moo koy dafa toog ba xaaji guddi mu am njaqare ko jaaxal mu yóotu ab otom def ca pelin ba mu fees dell nda daw ba katari ci guddi mu ne dërët ci say tànk yor ay jafe-jafe nga ne roseet jafe-jafe ba kooku bu fay ñëwaat nu muy def jeex na <laughs> macha allah loolu defe naa ni leer na mais damaa gis ba tey ci néeg bi sëñ bi da nga def ay tableau ay tablo yoo xam ne comme école ñu ñu ciy bind ak yooyu noonu tax tablo yi. tableau bi sax fi ne école bi daa tëj ba tey xale ya mag yi ne ci biir daara ji. Mhm. xale ya mag yi ni ci biir daara ji nga xam ne ñoom dañuy jàng xam-xam laxasee ci yeneen i gox te àddina daa soppeeku ndax fi ne français ma ne su ko ñàkk xam ndax bu ñu la yóbboo ca daara ja nga jàng alxuraan kese bàyyee ko fi dem mënoo bindi mënoo liir mënoo dara loolu ab tardement la moo waraloon ca gannaaw may leen yéen comme que dañ leen fi indi ngeen di jàng xam-xam man ci sama bopp jël naa sama engagement bopp jël benn jàngalekat ca université boo xam ne université Ndakaaru la jàngale dafa jàngale ba bàyyi jàngale à la traite ma jël sama engagement bopp da ko fayal sama bopp na leen ko bëgg a jàng mën ngaa dem jàng. yow da nga am xam ñëpp xam nañu ko da nga am xam-xamu lasraar bëgg nekk nit ñi di la soxla taal seen oto di la seet si en même nga nekk di contrôler école bi ñetti métiers yooyu sëñ bi loolu yombul de. waaw loolu mën naa nekk ndax man quatre heures ci fajar laay jog ñëw ci jumaa ji di jàngale ba mu naaj su ma jàngalee ba mu naaj ku ma fa mën a fekk nag ak koo mën a doon du ma jóg may jàngale ba mu naaj bu naajee mu dugg ci biir daara ji su ma duggee ci biir daara ji maanaam wër daara jëpp yéeg ci kaw fu ñu war a bale am na ñu ma ko féetale bu ma xoolee gis ne bale ko ma ne ah fii de diw moo ko war a bale tey de bale wu ko woo ne ko ah saa loolu de bu ko defati bu ëllëgee ku feebar ma xool ku war a yóbbu hôpital ma xam koo xam ne dafa fanaanu yitte ma xam sama paree dem kër ga toog. nekk ci samay taalif xam nga ab sëriñ bu xatee rek ci mooma mboolem koo gis ñi koy rang da daggi ticket ci mooma gis nga benn bis mas nga cee recevoir ay mboolooy mbooloo te doo xat bu dee nit ki bu ñëwee ak si waaxu wax soxlaam nga dégloo mu wax wax une minute nga ne ko baax na xam itteem bind itteem ne ko demal ba heure sàngam ba bu ñëwee jël itteem dem nga ko neer say taalif te bu ñàggee ci biir danaa la wax li ma taalif bu ñu yeggee ci biir dañ ci xam dara. d'accord dinañ dem léegi ci taalif waaye dese dese naa dese naa benn laaj nag parce que yi ngi wax nii yëpp ak fi nga tàggatoo yëpp bëgg naa xam sa cosaan fan la. bismillah waaw may ma 30 minutes nga xanaa loolu gars yi gars yi borom ñaan yi la. <laughs> ah ñëpp ay Dakar la ñuy dëkk di ñaan lu si tubaarkàlla macha allah sëñ bi ndax mën nga maa wax euh, sa cosaan. man maa ngi gën a jamono ci dëkk bu ñoo Kër Bakk. kër bakka mu nga ca pësi ca gannaaw Kaolack moo pësi maanaam statu pësi bi mooy dëkk fa meem ca suñ tool la nekk 1975 laa gën jamono dem dëkk bu ñëwoon Ndaraami ci pegg pësi dal fa jàng 1980 am fa juróomi juróomi fan dem dëkk bu ñuy wax Tawa jàng fa juróom benn weer ñëwaat Ndaraami jàng fa juróom benn weer dem jànq jàng fa juróom benn weer dem luumin jàng fa juróom benn weer ñëwaat ndaraame dëkk yooyu ma wax léegi yëpp ñoo dend bàyyi koo fa dem ko sëñ moon bay siise mu boole ma ak sëriñ ba siise ma jàng fa diir bu gàtt mokkal alxuraan beqi dem kaamil ngir dem dem kokki ngir jàng fa tajwid am fa ñaari weer tëri alxuraan amaat fa ñetti weer del ci jurbel bindaat juróomi kaamil dem ci loxo sëñ Murtala mu sëñ Tuubaa bi ma ñëwee ñu ngi nekkoon ci këram gi ci forage xam nañ fa diir dem ci kër gi ci jumaa ji am fab diir dem ndaam am fab diir fekk boobu si Mourtada dana dem Amérique fekk boobu tubaab yaa ngi commencé tuub